asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax di jéggalu ci toogaay bi ak euh, dérangement bi comme ni ko gars yi waxee rek. bu baax xam nañ ni jigéen ñi ñoom ñoo yor lépp même que boo yeewoo fajarteel sax ñoom ngay dajal ci kaw tali bi ñuy dem ci euh, dobin ba fu ne ñu fay dem donc bu ñu demee ba xam ne soxla nañ dañuy ñëw ci jigéen ñi comme nag ni mu ko waxee mbir mi moom jàppalante la. jàppalante bu ñu ko waxee mooy dangay ngay jàpp fii ki jàpp fii ñu mën a dem waaye du tax tey ka jàppalante bi ci kaw jàppalante bi dangay ngay jàpp ñu jàpp ñu mën a ànd dem waaye tey waxuñu tey nga ñëw jàppale ñu ëllëg kat nga bëggaat dara fajalu ne loola nga ne ah kii kat lim doon wax def ci dara fekk ñëw di ëllëg benn suur mas la defal dara ëllëg mu ñëw defalaatu la dara nga bëgg ne nga bëgg a nga bëgg nga bëgg a yemale foofu diggante bi déedéet du chaque jour lañ koy man comme ni nga ko waxee rek saa yoo xam ne soxla ngeen dara ñu man ko dañ ko def waaye buñ ko mënoon tamit duñ ko def ndax comme ni ko politiciens yeneen yi di defee mooy que ñëw tey jënd la jox la xaalis bu bëri ngeen yaakaar ne mooy waaji te du waaji parce que nag bu fekkee da ngeen am ndaw boo xam ne tey Touba gii la dëkk bëgg doon président yéen war ngeen ko mën a jàppale waaye da ngeen gis ci kanam tuuti maa leen ko wax ngeen gis ñeneen di jóge yeneen yeneen raison ñëw fii di leen jàll ab xaalis loolu nag ku leen ko dafa xam ne da leen di jënd ñun duñ leen jël benn xaalis dañu ñëw waxanteeg yow ci kalamatul xaq li nga xam ne tey mooy sax muy alxaqu saabitun wa amal baatil wa ala fa saahirun wa saahirun ginnaaw dëgg rek mooy sax te gis nga ay fen lum lu mu kawe kawe day yàgg-yàgg day day day day jeex day suuse donc kon nañ jàppante ci dëgg googu euh, suñ daaw da léegi mi ngi koy wax barabu suñ fàllu bee nee mu mel ku ñu wax ne kenn nit moo ko defal def ci ay milliards loolu loolu lu rëy la mbaaru mbàqee yéen a ngi koy gis ku dugg mbàqee da nga gis benn mbaar bu mag moom moo ko def barabu sëñ Sidi Moxtaar bi tamit noonu ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey mi ngi koy def ci biir dëkk bi yoo xam ne mënuñu ko wax mbedd su rëy comme ni nga ko waxee am na yoo xam moo ko sëkk même que boo demee Corniche Daara Jolof am na mbedd yoo xam ne tey ku la waxoon ne oto dina fa mën a jaaraat grâce euh, président Abdoulaye Sylla bu dul moom tey dangay bëri dëkk bi mbedd yoo xam ne tey du baax donc daal li ñu mën wax ci moom bëri na lool tey nag dañoo ñëw fi ngir tàllal suñu loxo ngir jàppale président Abdoulaye Sylla ñu fal ko 2024 mu defar dëkk bi gëm nañ ne moom rek moo mën a defar dëkk bi te buñ ko jàppalee incha allah dëkk bi dina baax di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di kontaan ci ma dérangement bi ngeen ñëwee fii ñun nag moom liggéey rek la ñu xam ànd booloo yow nag xam nañ sa papa bu baax xëy na ñun xamuñu la waaye sa rakk. kii papis fii la yoroo suñu kër gi kër lawbe yi papis ak suñu rakk ñoo daan ànd Moodu a ngi nii papis sa mag la waa suñu kër gi la yaroo xanaa bi mu tukkee lañ ko gisatul waaye suñu kër gi fi la daan yendu fanaan sax def na ko ci suñu kër gi papis kon ñun boo ñu waxee xam sa papa tamit noonu docteur la woon avant ñuy am hôpital fii ku feebar foofu ci clinique am ngay dem fajoo ji kon loo ñu wax ci yow dinañ ko gëm maa ngi lay sant nag di la gërëm di kontaante si ñëw bi nga ñëw si ñi ndaxte dangaa ñëw fi nga war a ñëw ñu teeru la teral la loo fi amut ci yow la ndax fii sa kër la waa fii la sa mag yaroo sa papa tamit xam nañ ko avant hôpitalu Ndaamaatu bi ñu ko fii gis moom lañ fi gisoon waaw ku fa faj kuy faj foofu ngay dem faju ji kon xam nga lépp xam nañ ko kon góor-góor loo fi amul rek ci yow la. di leen sant rek di leen gërëm ndax woote ñu ngi si la moom wax dëgg yàlla dafa neex waa yéen tamit maa sant ndax dëgg yàlla def ngeen lu rafet. comme ni ko Coumba Sow waxee rek ci seen seen biir kër daal ngeen ñëw fekk seen yaay fekk seen rak ak seen jarbaat comme ni Coumba mi wax rek sa papa moom yàgg nañ koo xam nit ñi xam ne ay mag i jëmm leen xam nañ ci moom lu baree bari waaw barki dee mu dégg naa ko mu wax ci tiktok bi daa wax bay jooy ci affaire bi diggam ak sëñ saaliw waaw ndax ñaan ko ko sëñ Saaliwu ñaanaloon mos sa faj benn malaat boo xam ne sii malade boobee am na benn défaut mm-hmm. wax na ko man maa ko déglu wàcce woon naa ko sax goneyee ko kii bërk démb rek waaye wàcce woon naa ko sax bàyyi ko sama pare noonu mm-hmm. wax na wax ju rafet keroog wax bay jooy la def te yàgg na doon dégg fii tamit li mu daan faj fi lépp yàgg yàgg na dem ci moom mu dini yóbbu fa sañuy xale mu dini fajal lépp te mosu ñoo am benn défaut ci moom waaw wax dëgg yàlla ba muy docteur Sylla ba negani si mosu ñoo xam si moom dara la ñaaw mas na fee ñëw fii tamit suñu benn boo xam ne fee ko amoon ba mu ñëwee xaalis bari la ñu may xaalis ba la ñu may na nan ko jënde dafa carnet mutuel yi boobu mooy doog am mu jox ñu nan ko jënde carnet mutuel te boo loolu lépp mën na ko cee bañ a fekk waaye daal din ci poosam ci saasali ni ñaar te xam nga loolu moom nit ko am positif doo nga koy def te loolu lépp mën na ko cee bañ a fekk yow boo fi ñëwoon joxe woo fi dara tamit soo ñëwee suñu doom nga war nañ laa jàppale comme ni ñu def suñu doom yi noonu lañ la def waaw kon nag yow tam nga def nga ni seen seen yaay ñu nga def ñu ko waaw li ngeen bëgg ñu fekk si leen ci ñoom itam li ñu bëgg ngeen jàppale leen ci koñ baa ngi nii li bëgg ci koñ bi dana leen ko wax ah li ñu bëgg suñu suñu mbootaay gi itam dana leen ko wax li ngeen ñu ci mën a jàppalee ngeen jàppale ñu ci bu ko defee yéen tamit fu ngeen ngeen bëgg ñu jàppale leen ko ndax ñun ànd ñoo kenn ku ñu jàppale rek ñu jàppale wax dëgg yàlla kontaan nañ de ndax nun yéen rek lan am yéenay suñuy doom yéenay suñuy ndaw yi ëllëg kon nag lu ngeen nekk ña nga ca ah nit mag la bu ànd ak gone gone nga daa am teggin am beer ñun nag yaakaar nañ leen yaakaar nañ seen papa yàlla bu yaakaar tas. ñun nag ñoo ngi ci yéen tey ba ëllëg ab suñuy gonek suñuy gonek suñuy mag ak suñuy ñëpp ñu ngi ci yéen ndax dëkk bi kër bi moom koo ci am am nga ñëpp boo amee mag am nga ñëpp boo amee gone am nga ñëpp kon nag barki démb bu fi ñeeri joxe ay ay kii ñëpp a jël mag ma fekk fee sama buntu ni sama buntu kër maa njëkk a jël sama gone yëpp jël ñëpp jël ba kii yëpp a jeex kon nga xam ne koñ bi moom amuñu tappal amuñu caaxaan yaakaar nañ leen yàlla bu yaakaar tas ñun daal ñoo ngi jox nañ leen loxo boo dee na sa papa daal jox nañ ko loxo tey ba ëllëg te dara du ko dindi lëg maa leen di nuyu di leen sant te Ablaye ndax Ablaye man keroog ba fi xale yee ñëwee yàlla dafa def fee la ma fekk may jaay café ñu jox ma carte yi ma ko man de fii sama yumpaañ moo yor mbootaay gi waaye Ablaye mi dafa fekk ma xam ko ndax sëñ Saliou mais gis na ma xam ne mooy xooree xam naa man xam naa ko Tandeye Dieng Tandeye Dieng soxna maa Ami Mbacke benn bakkan dama fa daan ñëw guddee ba ca mu dima fa yoon ñu fa ànd di ñëw ma xam lu baax li muy def ak li muy def si dëkk bi yow mi xam naa lu baax a na su ma daan ñëw ma daan ànd sama bàjjan su ñëwul sax man la yónni su fa fekkee sa yaay mu woo leen téléphone kon xam na man xam naa leen bu baax a baax ma xam ko si lu baax mu li muy def ak lépp Ablaye nag man xam naa ko baax a baax yow moom itam xam naa baax a baax sa yaay xam naa ko bu baax a baax fu laak fayda ak def lu baax laa leen xamee ak sëñ Fall fu mu bëgg àgg na yàlla na fa àgg ndax li muy def lépp xam nañ ko barki démb doo nga si mujj dégg nañ ko lim def kon nag yàlla na ko yàlla kàttan may ko wér wàkk sëñ Fall loolu dong la si amul may saani dëggal kàddu yi ndax nit ki bu la ko xamee bu ñu dee wax ci mbiram da ngay dëggal kàddoom ndax man xam naa ko bu baax a baax su kas rajo ba daan jot soxna maa mi man la yónni kon nag man xam nga xam naa ko bu baax te nit ki booy wax da ngay wax lu la leer ndax boo dee sa juróomi baaraam yi doo ngay layoo damaa xam lu baax si moo ak li muy def moo na ko waxee ma ne leen ñooñu dañu ma xam bu baax la ndax ñooñu damaa yàgg dëkk ak ñoom depuis gaar bu ndaw kesir xa kër si xale Mbàkke yaa ngi dee dégg 89 ba nëgë nii fanweeri at ak nangam boobu yàgg na Ablaye la xam naa ko xam rak jigéenam bi mami si la bu baax dégg nga ñoo dëkkoon ca gaar bu ndaw gee ñu walbatiku ñoo sanc si fii nii boobu si la mu ngay liggéey ndaamaatu génnee xam nga ne kon loolu yàgg na kon nag ñooñu bu ñëwee pour ñu jàppale leen dañ leen di jàppale bu baax ndax man ku leen yàgg xam ne si la mais nekk Issa Ngom xam na Issa bu baax ak kuy Issa ñoo bokkoon dëkk gaar bu ndaw gee ñoom kii mais Ablaye si la li ñu doon doon gone xamoon nañ Issa Ngom bu baax Issa Ngom mécanicien yaa ngi dégg maa ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom rek yal na leen yàlla jàppale dafa leen wer ak fan bu gudd ak gu yaram fu ngeen bëgg yegg suñu borom yeggale la deen fa. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di sant Cheikh Mountakhal Bachir yàlla saa borom yàggal ko ba liggéey bi nga xam ne sumb ko ci liggéey Serigne Touba bii yàlla def ci njàppandal. ñu ngi leen di nuyu ci turu président Abdoulaye Sylla di leen jox seen wàccuwaay di leen jéggalu tamit ndaxte woote ñu wuy si lool du lu yomb ba tax na lii nga xam ne nii moo ñu boole ñu toog fii ñun ñëpp yàlla na saa borom def ay tawféex yu kawe suñ jot te am nañ ci yaakaar ba tax na dañ fee ñëwoon tey pour wax leen kan mooy président Abdoulaye Sylla bu ñu leen waxee kan mooy président Abdoulaye Sylla ba pare expliquer leen lan mooy c cinquante de préférence nationale parce que mbir moomu ñu sumb noonu da da ngeen da ngeen ci ay acteurs ngeen ci yéen parce que projet boobu association patronat boobu noonu ci ngeen bokk parce que bi ma gisee xar kanamu seen doxalin rek laa xam ne yéen maanaam jëflanteeg yéen day yomb ba tax na président Abdoulaye Sylla doomu Sénégal la doomu doomu askan wi la. particulièrement doomu Touba la ndaxte fii la juddoo ay waajuram fii lañ nekk ci dëkk bi mu nekkoon ci dëkk bi tàmbalee ci dëkk bi ba saa borom ubbil ko buntu wërsëkam ca ndakaaru ga ñuy yëngu mu ubbi fi ay société sociétés yi nag bi ci gën a ràññeeku mooy Ecotra mooy suñu entreprise bi nga xam ne nii moo fiy ñëw chaque màggal Touba di fi di fi def ay yëngu-yëngu bi mu ko tàmbalee def ak léegi mi ngi toll ci juróom-ñeenti at bob ba léegi mi ngi mi ngi ñëw ci ci dëkk bi saa yu màggal gi teroo bu desee ñaar fukki fan ak benn yëngu-yëngu yi amal biir Dakaaru ku ne xam na ni ci li ñu nekk ñun ci secteur privé bi lañ nekk maanaam li ñu nekk ñun ñoo ko moomal suñu bopp dañuy xaatim ay contrat yoo xam ne nii dañ koy signé ay yeneen partenaire ku ne xam na ni contrat yooyu noonu boo ko signé maanaam benn bis boo retard ci li nga war a def dañ la ciy def dañ la ciy dañ da ngay am ay amande yooyu fay ba tax na loolu yëpp da koy dajale ngir liggéeyal Serigne Touba ngir liggéeyal askanu murit muy doon jaayante bu kawe boo xam ne ni day déployer ay matériel am day jël ay matériel am yëpp mobiliser ko lu ci toll mel ne li camion yi lu ci mel ne ay chargeur rek yu demee noonu engins yi lépp pour xar kanamu dëkk bi rek gën a sell ma xam ne ni gan ñi bu ñëwee dalu ci daluwaay bu am solo. loolu dafa bokk ci yëngu-yëngu yi muy def ci yoon wi muy lu ràññeeku nga xam ne matériel yi bu ñëwee da koy jébbal xalif général de murit mu teg ko ci xalif général des Baye Fall ñu ànd ci dëkk bi di di di di jàpp ci xarkanum dëkk bi set setal dëkk bi ba gan ñi bu ñëwee ñu mën ci dal daluwaay bu am solo taxawaay boobu daal la am juróom-ñeenti at a ngi nii mi ngi koy def ci ren boobu ba léegi mi ngi koy def. ci loo xam ne nii ci njàppandalu poosu boppam la ak yeneen sociale yoo xam ne nii da koy yëngu ci dëkk bi yoo xam ne nii man sax amaana bu may dem ci nit di waxtaan ak moom ca jokkalante ba cay wax laay xam ne am na lu mu fi jëf ndax ay mbiram bu koy jëf du bëgg nit ñi xam ko loolu bokk na ci qualité doomu aadama yi mu am yooyu man loolu laa ko nawee man mii di wax ak yéen man du ma politicien ñun duñ ay politicien ñun ay entrepreneur lañ ñun dañ fee créer société di employé ay sénégalais lu toll ci 2000 sénégalais ci secteur boobu ñu yëngu nag ñu commencé ci am ay jafe-jafe di ci dund loo xam ne nii teguwut ci yoon maanaam marché yi nga xam ne dañ koy gagné dañ koy fuqarti suñu loxo ñun nga xam ne doomi sénégalais lañ yàlla suñu borom wërsëgalee ñu fii ci dëkk bi ñu fi def lu baax léegi rek sama mbokki taalibe yi wax nañ leen li muy def ci dëkk bi lu ci mel ne ci wàllu xabru bi lu ci mel ne ci yeneen ak yeneen. marché Ocass dama dem di waxtaan ak délégué marché bi pour di ko wax ne ko di ko yón di ko di ko jàllale bataaxalu Ablaye ne ko dafa bëgg bokk ci élection yi mu xamal ma ay mbir yu mu fa defoon yoo xam ne nii ci mille 2019 la ne ma marché bi de bi mu amee jafe-jafe assainissement wala mal ndox mi sonal leen lool saa yu tawee maanaam mooy indi entreprise am ña fa gën a xarañ ñu jàppale ko ci biir marché bi def fa ay canalisation yu baax ba léegi marché fraude bi boo leen seetloo taawatul ndox muy jàppandal yoo xam ne ni da koy def ci sutura te yàlla rek tax mu dollil ma ci ne ma camion mbalit bii ngay gis de moo yëkkati ay millions yu baree baree bari teg ko samay loxo ne ko jënd ne ma jënd ko pour marché bi di lépp loo xam ne nii ay mbalit la ci marché bi mooy ñëw di ko ñu ko ci yàpp di ko tuuri mu doon ci wàllum social bu muy def ci biir dëkk bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii man amaana xaw ma te man xam naa ne mi ngi koy jëf ndaxte loolu yëpp ci sutura yu muy def maanaam ay mbiram sax du bëgg nga koy xam ba koy jibal loolu man de loolu lay jàppee nit man de duma ma jàpp nit ko amul sutura koo xam ne ni lu defal nit bu ñi bu xam ko loolu ci qualité yi doomu aadama yi nga xam ne nii moom la ñuy nawee nit ci la bokk wala bokk man ci loolu laay nawee nit ba tax na liggéey boobu ñuy liggéey créer fi emploi ay toll noonu yàlla sunu borom suturaal ñu ñu investir ci dëkk bi dañoo commencé am jafe-jafe ci suñu bërëbu liggéeyukaay boobu moo tax entrepreneur yi nekk Sénégal ñi nga xam ne ni ñoom la yàlla suñu borom suturaalee ñu investir li ñu investir ci seen réew di jël ay sénégalais ñu leen di liggéeyal di ci daan seen doole di fa jariñu di jariñ seenu askan ak ñëpp ñu jaxaj loolu kat daa commencé am ay jafe-jafe maanaam état bi dañoo tàmbali marché yi nga xam ne nii mooy dogal ci réew mi ñu koy jël di ko joxe ay doom ñi nga xam ne nii baawoo ko ci réew mi maanaam ñi nga xam ne nii ay étranger lañ loolu moo indi jafe-jafe yi ba ñoom seen biir ñoom sénégalais yooyu di ay entrepreneur jiite ay doomu aadama yi ci biir Sénégal dajaloo jiital ko ci ñu ciy liggéey liggéey bu am solo boobu ba léegi parce que 46 départements yi ci Sénégal yëpp daanaka suñ yeneen mbokk yi dem nañ fa di waxtaan ak nit ñi di conscientiser ci projet bi maanaam di waxtaan ak ñoom ci projet bi wax leen kan mooy Ablaye Sylla ak lan moo indi sabab bi loolu moo doonoon suñu tànk tey moo tax mën nañu fépp foo leen dem dans les pôles de développement ngeen ubbil ma fa kër C50 maanaam kër c cinquante googu dana dana jàppandal ci jafe-jafe yi population boobu maanaam bu ñëwee fu mel ne Touba Soura ñu créé fi kër c cinquante daje fekk suñu yaay ji baax ji nga xam ne moom mooy doon représentant c parce que bi ma ñëwee fii gis naa leen ngeen di def seen i calebasse di commencé di dajale seen ay ay ay koom bu ko defee ku ci nekk lañ lay teggil da nga ci mën a def ci say activité mu néew mu bari ñun nag ci loolu lañuy dox maanaam buñ ñëwee ci gox dañuy xool jafe-jafe gox boobu fexe ba am fa représentant ci gox boobu képp ku am jafe-jafe ci biir gox bi day ñëw adhéré ci club bi mooy club c de préférence nationale bi bu adhéré ci club bi maanaam biir club bi ñun lii ñuy dox ni dañ ko ànd ak ay doomu aadama yu yàlla may ay nit ñu xarala ci biir club bi day am école C50 fii bu ñu ko tàmmee structuré dañ maanaam day am kilifa yu fiy ñëw créé fi école C50 ci biir école bi day am ay représentant C50 mu am école C50 mu am ñoo xam ne dañ leen di jàngal dans les métiers ndaxte nit ki kat lim lay may mu jàngal jën gi mu lay may mu jàngal ni ñuy nappee moo ëpp solo ba tax na ñun ci noonu lañ ne. loolu moo ñu wutaleeg ñeneen ñi ñun loolu laay wax chaque jour distinction boobu laay def ñun duñ ay politiciens ay entrepreneur lañ ci loolu noonu ñu nekk noonu ci lañ xam ne ci lañ mën a ñoŋal dëkk bi maanaam amaana jafe-jafe dëkk bii ngay gis ñëpp buñ fexe woon ba ñëpp am ci lu ñuy yëngatu am sutura lu baree baree bare dina soppeeku ci dëkk bi parce que yëngu-yëngu yi da àdduna bii nga fi gis lépp ndaw ñi amuñu ci lu ñuy yëngatu ku ci nekk bëgg ngaa xëy dimbali say jur mais doo am ci looy yëngatu waaw moo tax fléaux sociaux yi ñuy dem ci gaal geeg gi demee noonu ba tax na koo xam ne nii créé na fi emploi créé fi 2000 Sénégalais ñuy liggéey kooku amaana li muy li muy xëccu nii bu ci jotee waxuma la jafe-jafe yi dina fi jóge de waaye lu bare baree bare dina fi soppeeku ndaxte bi ma demee di ko wax Sëñ Abdou Karim daf maa wax wax ju am solo nee na ma Sëñ Ablaye kat day neex a jàppale. ndaxte jote day jiitu joote maanaam moom avant moo soxla nit ñi daan na yëngatu ci jafe-jafe nit ñi kooku nag bu soxlaa nit ñi na du war a jafe ba tax na moom ci loolu la ne loolu nag moo tax fépp fu ñu dem dañuy fexe ba créer fa kër C50 kër C50 googu dina leen dimbali yéen ci seen i activité maanaam ci biir kër gi boo ñëwee ci kër gi adhéré ci kër gi dina am ay formateur dañ la former ba nga mucc ayib maanaam boo xawee ne nii jàppandi nga ba mën a def doxal say activité activité ba nga bëgg nag yëngatu maanaam bu fekkee da nga bëgg a tra nekk ci transformation céréales yi wala yuy demee noonu wala beneen jumtukaay boo bëgg liggéey maanaam da nga bëgg a defar di di defar ay transformation de l'huile maanaam ni ngeen di def di segal diw gi wala ngeen yëngatu yeneen yëngatu di jënd ak a jaay parce que entreprise bi ñu nekk groupe d'entreprise la dafa am ay filiales yu baree baree baree bare yu nekk ci biir maanaam Ecotra moo ci gën a siiw ndax moo nekk ci wàllum assainissement mais am na ci yuy yëngatu ci commerce yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen pàcc yu baree baree bare ba par tax na dañ ci ànd ak ay nit ñu xarala ñooñu dañ leen di dimbali ci seen i activité maanaam dañ leen di former pare parce que nit ki boo ko mayee xaalis wala nga jox ko xaalis mu ne ci activité bii laa bëgg nga yëngatu te amu ci xam-xam amaana mën na ciy am ay gàllankoor te gàllankoor yooyu lañ leen di jéem a dindil ba pare boo buñ la tàggatee ba nga mucc ay war a demal sa bopp dañuy teg ci biir club bi ay mécanisme de financement loolu dina dina dina dina répondre ci ci benn problématique bu am mooy banque yi ni ñuy ni ñuy doxalee ak ñun parce que banques yi du ñu lebal ko amul xaalis ñi xaalis lañuy ñuy lebal ku ne xam ne suñu yaay yi nga xam ne ni da ngeen di soxla maalum koom-koom pour développer seen activité mais doo leen am foo leen koy wutee boo demee ci banque bi duñ la lebal léegi nag ñun buñ la tàggatee ba nga mucc ay ci biir club bi booy dem dañuy teg ay mécanisme de financement dañ lay financer sa projet ngay fay ca nam la neexee. te du am benn intérêt banque bi bu la lebalee 500000 1 million nga koy fay biir club bi nag dañ ko organiser structurer ko de telle sorte que buñ la lebalee xaalis maanaam booy dem buñ la lebalee 500000 500000 ngay fay te amul échéance maanaam amul la 5 ngay fay da ngay fay ca nam la neexee loolu nag muy njàppandal yoo xam ne ni dafa am ci biir club C50 de préférence nationale doomu réew mi créé ko doomu Sénégal créé ko muy le président Abdoulaye Sylla mun nañu jiitul leen ma fa nga xam ne nii fa laa dëkk fa laa fekk baax ngeen waxtaanal ma sama askan. bu ko defee seen i jafe-jafe jamono danañ fexe ba tëgg ko ba mu jàppandal ci ñoom ñu jox leen seen i matukaay ñuy def seen activité ci kaw loolu nag ku ne xam ne état ni muy doxee. parce que bu ñu la gisee ngay nekk ci yenn activités yi dañ lay teg yeneen gàllankoor moo tax ñu ne échéance électorale yii ñu jëm ñoom ñi nga xam ne nii ñoo àndandoo fal président Abdoulaye Sylla mu jiitu ci association patronat bi ñu ne ko échéance yi ñu jëm dañ ciy wane suñu bopp ndaxte lii nga lii nga bëgg ci askan askanu Sénégal pour ñu mën koo def ba mu ñoŋ faw ñu am li ñuy wax appareil de l'État maanaam échéance yi ñu jëm présidentielle yi ñu jëm faw ñu jiital la ci yaay suñu mbër bu ko defee bu ñu demee ba am appareil de l'État maanaam lii nga xam ne nii moom lañ bëggal suñu askan daral ko ko day gën a yomb loolu moo bokk ci mbër yi war a xëccoo réew mi en 2024 te li li sama xadd yii di wax rek liñ naan bay sa wewu tànk ñun moom fii lañ dëkk am naa yaakaar ne suñu digganteeg yéen moom wallahi azim naxante bi ci xaj ndaxte koo xam ne nii boo doxee lu lu tolloog euh, juróomi jéego egg fa mu dëkk wala gis mbokkam kooku ne xam naa ne bu doon naxe nag wallahi war naa dem feneen naxe fa waaye du dem ci kër ga mu dëkk di fa naxe nag loolu nag war dëgg yàlla xel nag waru koo sax nangu waaw samay waajur fi nekk ak samay rak ak ak samay mag ñoom rek ñoo fi nekk te wallaahi azim li may wax chaque jour nee naa leen échec képp ku ci naral senegal lu baax yàlla na la suñu borom defal jàppandal te ñun xam nañ ne ñun liñ naral senegal lu baax la moo tax képp ku ci gën a naral senegal lu baax rek yàlla na la suñu defal jàppandal te ñun am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax. ñi ngi ciy liggéey liggéey bu am solo di leen ci tàllal suñuy loxo nag di leen ci ñaan yàlla suñu borom ngeen jàppale ñu ci ndaxte président si la moom ay mbiram moom nëbbuut lu feeñ la lu feeñ la moom moom wax dëgg yàlla moom la ñuy naatableeg mooy li may wax chaque chaque jour rek ay mbiram moom saxaar la goo xam ne ni day dem rek ku dugg rek mu yóbbaale la ku taxaw mu jaar ci sa kaw jàll ba tax na daal ñi ngi leen ciy woo yéen ñëpp ngeen jàpp ci liggéey bi bu soobee yàlla lépp li ngeen fi wax comme doléance ak lu leen jafe-jafe seen jafe-jafe jàpp nañ ko te bu soobee yàlla danañ ko wax yeggee te am nañ yaakaar gu kawe suñ njort ne saafara na ci am bu soobee yàlla ba tax na ñi ngi leen di jaajëfal ci toogaay bu metti bi xaar bi xawoon naa yàgg waaye yitte yi jamono rek moo ñu xawoon a tënk wax ji nag bu yemee xamal ne ne lépp suñu borom la waaye bu amee dara lu ci lu ciy lënk-lënk rek xam ne doomu adama bi asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp asiru maalarai nasiru wasanata

ويزيل الرداء من واسع الوهاب فهو النسير أميري لدى